anniversaire yu benn doom mu ngi tudd Awa Gueye alors Awa Gueye euh, bébé Awa da nga ko xam doo xamee doomu Adja doomu doomu kii um, Adja Adja ban Adja mu Madiodio Gningue donc ko mos gis Awa Awa gis naa ko à maintes reprises soo ko gisee euh, ndeysaan bi bi maam ji di dund demoon naa këram fan la maam ji de fu mu dëkkoon avant maam ji di Fadia fan ci Fadia ah, Pam bàyyi nag mais ku dëkkoon en face kër kër Madiodio Gningue xam ko fa dëkk kon mosoo fa <laughs> oui parce que man fa laa doon añee tout le temps. am na ay tout ma ne ko yaay maa ngi toog de sa yaay lu mu togg ma ne ko ah yaa ne ma ñëw togg naa ceeb bu may dem damay ciibutu yaay <laughs> donc ma jël de ah, kii ah. la euh, bébé Awa Gueye la tudd depuis qu'elle est petite ah, euh, ma gis ni ay ñu ngi koy xëccoo ak man gisee fen par exemple neen daf ko nopp te gisee gis nga sama maquillage bi boo ma xoolee rek xam ni ku raglu boo bàyyiwul sama jabar ji dinaa xeex ak yow <laughs> donc bébé aw euh, Awa Gueye tey la anniversaire am on lui souhaite un ah happy birthday yaayam mu ngi nekk France Adja Touré jaar fii ah. ak euh, euh, beneen maamam di Adja Khadi Wade Bàcc hmm, Adja Khadi Wade moom la ma joojo ne woon ah. Khadi Wade Bàcc Jóob ak rafet xalaat te dem jëkkëram sama waajee moo tax papa Balla ñang ndeysaan xale yi xamuñu loolu mais xam ngeen lu yaas bu metti bi ci réew mi ma joojoo ko woyoon lu yaas bu metti luwee nañ ci waxtaan jubóog suñu gaa ñi luwee wala ba tey xamuloo ok d'accord Kya Aidara elle vient de la Tunisie donc Adja euh, souhaite bon anniversaire à sa fille euh, Awa Gueye sama chérie sama doom on lui souhaite un happy birthday euh, de la part de sa maman ak tonton Bouba ak sa tonton yi nekk Sénégal yëpp ñu ngi lay ñaanal jàmm nga màgg ba di ñu yóbbu Màkka sama jarbaate nag ku bu ci yóbbul maa nar nekk paa yu compliqué yooyu <laughs> paa yu soof yu compliqué yooyu mon euh. <laughs> Euh, c'est l'anniversaire de Maman Nabou euh, C'est de la part de Modou Aw, Grand Dakar. Donc Modou Aw, on souhaite un bon anniversaire à Maman Nabou. Joyeux anniversaire à mon père, Mamadou Traoré. Je te souhaite tout le bonheur du à Yafa Awa. Awa non dafa jóg Cheikh Ndiaye di la nekk ak di la nekk ak ma. avocat la gàllankoor yi Cheikh Ndiaye nekkoon léegi ne ma kenn dama ak ça va tout bon on va côté comme elle m'énerve oh. mais tout le temps je dis que li euh, Cheikh Ndiaye. bind deux messages bind bind comme ay vingt sept <laughs> yow bind li ngay bind dafa nuróog yow li nga laajee nii sa équilibre. <laughs> Cheikh ñaari message c'est vrai que nit ki ni mu mel dafay feeñ ba ci li muy bind. ay waay oui ça c'est les psychologues qui disent ça. alors celui qui écrit euh, anniversaire yi pour man nan la toll. je vais vous <laughs> montrer je vais vous montrer. yow Cheikh Ndiaye bu doon mayoo da ngay jóg dem dañ lay wane lii. équipe bi nekk ci ginnaaw la nekk donc pour jox leen aperçu à quoi il ressemble c'est ça nii la toll de donc dafa mel ni nii nga def ci bopp def ci loxo ak tànk donc kii mooy Cheikh Ndiaye bu service digital voilà merci kenn laaju la merci chérie donc joyeux anniversaire à euh, Mamadou Traoré donc Traoré donc c'est de la part de Awa ak Yafa depuis Paris joyeux anniversaire à Binta longévité santé et plein succès euh, Binta donc ñu ngi koy ñaanal euh, message bu ñu jot la ci suñu page Facebook ak sa photo euh, ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire joyeux anniversaire à mon fils Mohamed Moustapha Ndiaye depuis Italie il est tout beau Mohamed Moustapha Ndiaye on le regarde alors Mohamed Moustapha Ndiaye ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire moom mu ngi nekk Italie c'est de la part de son papa ak maman la famille donc mu ngi nekk Italie bon anniversaire joyeux anniversaire à Alpha Oumar Diagne Alpha Oumar Diagne c'est de la part de Aïssatou bu nekk télévision Futur Média Aïssatou bu TFM donc mu ngi souhaiter un bon anniversaire à Alpha Oumar Diagne joyeux anniversaire à Ndodji Diop Ndodji Diop dundal de la Badoyal ànd ak weer ak xéewal euh, yu bari euh, c'est de la part de euh, Seynabou Diop depuis Birmingham donc ñu ngi souhaiter un bon anniversaire à Ndodji Diop j'espère que c'est ça Ndodji ah merci mon ami Cheikh tu es le meilleur ah donc joyeux anniversaire ànd ana foto Ndodji taga taga ko dugal la toto mag ci yow la yéexee de bon d'accord Ndoji joyeux anniversaire joyeux anniversaire à Mamadou Lamine Bara Diagne Mamadou Lamine Bara Diagne 4 ans la am euh, doomu Daba Sène ak Mor Diagne nekk Joal c'est de la part de Mbirou saar donc Mbirou saar bu télévision Futur Média mooy souhaiter un bon anniversaire à Mamadou Lamine Bara Diagne euh, doomu Daba Sène ak Mor Diagne ñoom ñu ngi nekk euh, Joal dëkku Mbirou saar Mbirou saar neex a Espagne noonu laa ko tuddee joyeux anniversaire à Seydina Issa Lay Diop fils de Fallou et de Mami Euh, voilà donc Seydina Essa waaw dafa def euh, déguisement bi Halloween waaw c'est Halloween mën nañu déguisé wu lu ñu neex moom il a préféré def pas moo gën muy def lu affreux donc ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire tu voulais dire quelque chose. ah soo paree après anniversaire. d'accord pare nga ma de ah. d'accord fii du arrêté di la kàddu yi. ah yéen seen a joxeel sant rek jox kàddu yi. fii c'est dañ may jël directeur statut directeur. fii dañ maa nommé directeur doog ma recruté. directeur des programmes adjoint. après mu jeex. la ñuy jeexalee d'accord <laughs> Pape Doudou Thiam moo remplacé Mamadou Ibra Kane ah. euh, de la part de sa maman Marième Soda et puis joyeux anniversaire aux jume aux jumelles Issa ak Nabou Diop Issa Ndiaye ak Nabou Diop tey la anniversaire anniversaire c'est des jumelles c'est de la part de euh, Tata Minou eh euh, Minou ak Ngala Diop ak Mame Marème euh, nekk amitié 3 donc Issa Ndiaye ak Nabou Diop euh, les jumelles on leur souhaite un bon anniversaire. Ngaye ñu ko Diop non dafa am Ngalla Diop aussi. ah dafa am seen kër dafa am ñaari Ngalla fa dafa am Ngalla ah ñoo bokk koñ. si si si nga bëgg kañ la yow yow yow ak euh, Ngalla yéen a bokk koñ. ak euh, Kine Sène. Ah, Kine Kine Chouard mu dem félicitation am na doom. waaw waaw a ngi leen di. Kine Sène am na doom. ajuma ngeen deli. waaw loolu am na waaw c'est vrai xew yëpp xam nañu demoon naa kay. Bintu sama non seulement c'est ma nièce mais en même temps sama xarit la cest à ñaari position la am ci man. Mm. c'est une c'est amie mais en même temps c'est ma nièce. donc Bintu Blé euh, doomu Abindour on lui souhaite euh, happy euh, birthday voilà je pense que c'est anniversaire yi ñu ah mais nag quand même tam nga am